waaw mbokk yi Dak Médina rendez-vous si seen chaîne bi exclusivité boo xam ne dox dajale rek dox daje bu doy bu gàtt waaye dinañ ko gën a yaatal ngeen xam li ci biir ak li ci biti la ca kanam ak liy waaj a ñëw ak sit bi mag bi nga xam ne mooy Dak Médina bi xew ci jamono te xew tey mës a xew te du mës a xew yi ndax Médina fi lañ ko fekk gën gi mbindeef Médina neex a dëkk. tey internetu Dak Médina ñu ngi leen di ziar bu baax baax maa ngi nii taxaw ak sama tons muy Kouthia moom kenn dootu ko présenté ci le monde entier ci lu jëm ci wàllu humour nga xam ni am na ci doole am na ci benn niveau boo xam ne euh, yaakaar naa ku ku ku rompe wala ku dugg rek yaa tax mu dugg yaa tijji porte yi yaa yaatal porte yi yaa ibbi xol bi yaa wane ñëpp. waaw loolu dëgg la vraiment loolu boo ko waxee wax dëgg yàlla nekkul lu ñuy laam-laamee parce que. Euh, dañuy njëkk kontaan di remercier waa Dak Médina ak euh, internautes yi ak ñi nga xam ne ñu ngi koy seetaan ñëpp di leen gërëm di leen sant ndax Médina moom euh, dëkk la boo xam ne dëkk culture la dëkku artiste la dëkku diine la Médina daal loo wër ci Sénégal ak mu ngi ci mu nga biir Médina. ñu ñu ñëw seet la fi ITV ñëw fekk la sa bërëb bi ngay liggéey nga bi fi ñëwee ba léegi na am nga satisfaction. waaw mais xam nga tamit lu yàgg rek nuroo parce que ñu ñëpp dañu dañu nekkoon ci benn bërëb après yàlla def ñiy dem. ñuy fekkante te lu lu yàgg rek dëgg la te nag euh, am na fu ñu nekkoon ñoo am na fu ñu nekk tey itam tey muy nuru fu ñu nekkoon parce que boo xëyee ña nga doon gis sa ngay gisaat kon daal day mel ne que mbir mi daal wax dëgg yàlla c'est la famille encore rek benn la c'est la même famille waaw mu gën a yaatu rek te liñ ko gën a yaatalee rek mooy kenn ku nekk fa nga nekk rek nga wane fa sa xam-xam ak sa mën-mën loolu moo am solo li jëm ci wàllu humour yow nga xam ne mooy li wax léegi yaa tijji porte yi ba ñëpp international nan nga def ba intégré international seen international ñu bëggoon nga may ñu ci tuuti rek lan mooy sa secret. waaw sa secret mooy sama secret mooy nga constant constant mooy euh, xam nga chaque jour euh, ngay lekk ceebu jën ak ataaya yaa ngi dégg sa du goro dem damyee grand place waxtaan loolu mooy sénégalais bi maanaam bu xëyee dina ndékki dana dem damyee ji dina seeti ay mbokkam dina lekk ceebu jën dana ataaya Kouthia noonu la mel ci biir Sénégal maanaam munoo xëy te doo déglu Kouthia war a gisoo Kouthia mu am lu mu def loo xam ne quotidiennement day dem ba nekk ci biir Sénégalais yi léegi constance boobu nga xam ne da am constance chaque jour ñu lay gis bu demee ba ñooñu miin la ba xam la da ngay jéggaani nag wane li nga mën ci beneen côté loolu nag mooy fexe ba la ngay def nga jéem koo internationaliser dugal ci loo xam ne keneen ki déggul olof mën na koo seetaan te buy ree day mel ne dafa dégg olof ndax cafta ba nga xam ne moom nga doon wax ci olof moom nga àddina bi di la soxla ndax sénégalais léegi ils sont partout dans la monde am na ñoo xam ne dañu am jabaru américain am ñu am jëkkëru américain donc kon yow euh, la ngay def bu fekkee ne doomu sénégalais ba koy seetaan ma ngi koy tekkil ki nga xam ne mooy borom këram wala xaritam dana dem ba kooku intéressé wu sa carrière léegi nag yow da ngay ñëw rek adapté wu ci loolu continuer ko waaw kon li ngay def nii maanaam mën naa muuma mën na ko seetaan ku déggul langue bi mën na ko seetaan parce que artiste moo moo moo moo moo neex waaw mais xam nga mën nga retaaloo nit ki sax doo wax ci par mun nga reetaan loolu nit ki doon wax loolu ci ay geste la ay geste yoo xam ne boo ko defee rek nit ki mun naa ree parce que man ñi may woo ci bitim réew naan ma suñu ay xarit tubaab ñu ngi ree te xamuñu li ngay wax ne nañ bu ñu la gisee sa déguisement rek ak ni ngay waxee rek ak sa façon taxaw ñoom dañuy xam ne kii comédien la kon donc loolu mayu yàlla yàlla moo ko def ci nit mais daal vraiment euh, fii euh, fii fi musique bi egg tey ñun fexe nañ ba dugal fa culture bi parce que ñu yóbbu musique bi foofu dañu doon jël dañu yóbbu ku ci mel ne Youssou Ndour bu doon dem tournée dañuy jël dañu yóbbu ñu fay nekk di en wolof mais am public boo xam ne du ñu xam ne kii kat nga am au niveau d' international samay prix nag bu ma koy compter fii ci Sénégal mënu ma ko compter mais bi ci mujj rek Niger bi nga xam ne dañ ma fa woo euh, comédiens yi nga xam ne ñoo nekk euh, di Maman nga xamné mom comédien nigérien la euh deuk nek ci France muy euh, assemblée des comédiens yépp bi ma fa invité jox nañu fa prix euh euh, c'est euh, FESPACO bi amona naa fa meilleur artiste euh, comédien mu indi fi coow lu métti ñu naan Kouthia da ko wax mais amul prix bi mu dama fekk ci parce que dew moon kon prix mom Sénégal dal lepp lu fi joxé ci prix ci culture man téye ko fi ci Sénégal dalé ko ci ay Oscar ak dalé ko ci ay micro d'or ak ay Palme d'or ak ay César ak yooyu yëpp jot naa ko kon moy wane dal sama deuk sargal nañ ma dem na ba prix dialogue islamo-chrétien chrétien maanaam chrétiens yi seen bopp di yëkkati nañu ab médaille ak prix jox ma ko nee nañu parce que seetaan nañu ne depuis ma nekk sama carrière man rek maay artiste comédien bi nga xam ne su may tàmbali sama émission damay nuyu njabootu yonent yàlla Yeesu Christ sa borom mu sell mi te bu koor gi jotee damay def carême ni ma koy defee ci weeru koor dama leen defal tamit weeru carême ci chrétiens yi ñoom tamit ñuy bég ci at bi ci seen carême kon nag wax dëgg yàlla ci cadre religieux lépp jot naa ci prix bu ñuy joxe ci cadre sportif sax du ma sportif waaye décoré nañ ma ci sport sport et jox nañ ma ci euh, li nga xam ne moom mooy euh, mooy prix kon daal wax dëgg yàlla yi daal wàcce nañoo man ci li nga xam ne moom mooy ay ndàmpaay ay prix. sama dernière question mooy est-ce que tey yaa euh, benn école de formation di former xale yi. loolu mën naa ko mais dafay jafe xam nga tax mu jafe parce que man damay inspiré wu spontanément te li nga xam ne nag jàngoo ko yàlla la ko may pour nga jàngale ko dafay metti. non boo ko bindee tamit la temps koy bind am lu gën a neex lu ñëw loolu ngay effacé ko ndax li may wax nii avant may gée mhm. li may li ngeen seetaan Kouthia Show yëpp ay chapeau la chapeau mooy su ma xamee ne tey Ablaye Wade mhm. wax na jëm ci Macky Sall ñu ne vidéo ko presque su ma ñëwee ba taxaw mhm. leneen laay wax lu gën a neex li nga xam ne moom laa dégg ci presse bi ci mais du ma ko wàcc loolu may bu yàlla la may bu yàlla nag pour nga jàngale ko dafay doy waar mais mun nañu ibbil xale yi nan dañuy taxaw sur scène nan ngay mën a nekkee constant ba xam ne doo sàppi doo saturé fi nga war a dem nga war a dem lan nga war a wax ba kenn du la jéppi doo dugg ci cosaan maanaam cosaanu jàmbur du ci dugg ak handicap parce que nit ki mën nga ko reetaan loo te day ci handicapam benn gumba la woon benn lafañ la woon benn muuma la woon benn waajam AVC nga koy toppandoo te xamoo ne am nga benn fans boo xam ne li ngay nettali moom moo ko dal te boo ko waxee rek mu toog vexé sew fi mu toog yooyu yëpp artiste comédien da ko war a moytu pour mën a dundu ci aaram te kenn du ko jéppi. Maître El Hadj Diouf ginnaaw bi ngeen gisee résultat yi mi ngi nii doo ko ah, wàcce. Eh, yaa ma laaj ay benn député ñaari député l'essentiel ñun ñooy majorité balaa may dee diwtiir taxaw man xam luñ ko ragalee ma diwtiir de Casamance dëkk ma ragalu ma du ma tur turam nag mais xam na ma man xam naa ko buñ tasoon ci koñ bi naan waaw Sonko El Hadj Diouf wax ni dafa gis Sonko bu gisee Sonko day daw na ñëw dama sama kër ma nekk ñànk tànk def ci diwtiir sol moo ko man ragalu ma ko maa ngi dëkk fii ñaari jabar laa am guddi laay génn bëccëg laay dox amul may ragal ñoo leen gagné gagné nañu un point un trait te incha allah bu ñu demee ba la 14 euh, euh, septembre assemblée dañu xam lépp dëgg la ah fan yii toogal déglu Macky ma fal ma doxal yi ah, man li ma sonné ci bi eh, Macky Sall moo falul kon man man dee naa kon man yàqu na ndax man li ma def bi xuloo yi may xuloo sama bakkat ma jël teg ko ndax Macky moo falul ma xam ne man du ma tee ma man tekku ma dara ci réew mi.

dañu waxoon ne PDS amatul waaye bi mag Sall jëlee loxoom ni ko ci njuuj nee na wuyaay yooyu ndax li ko lakk ci biir la nekk ñi xamal nag rawante ay mag ay ay man maa ci gën a màgget mais gis nga position raw nañ leen ñu bañ ko te man mag laa maa nekkoon tête de liste soppi du mos a changé kon nag ñuy wax ni PDS deewul tey la gën a dund ku weddi jëlal sa loxo def ko ci doomu daal xool ndax du am lu la màttam déet ñu ne 2024 da ngay posé waat candidature. waaw mais assemblée bi sax bëgg naa doon président ndax. président assemblée bi ki gën a mag moo koy présider. ma ma naaxoo. ja ban naax yow tamit ki fa jógee da maa mag Moustapha Niass ñoo maase eh, dañu bàyyi ñuy Ablaye bi mu nekkee fii Senghor eh, Lat Dior ak abla Wade ñoo maase yooyu ay wax la rek bu fekkee ñoo maase bi ma gëstoo Moustapha Niass sama ginnaaw kon ñoo bokk génération Moustapha daa toog ba doyal ñoom ñëpp xam naa leen ils sont nés avant Jésus-Christ.